li mujjee dénkaane amoon na dénkaane yoo xam ne dénkoon na ko ci njaboot gi kenn ku nekk mu am fu la séddee ak yu mu euh, for nañ ci yow béy que ni euh, sëñ Béthio avant muy dem ci tukkeem ba mooy bitim réew di faju ji ba suñu borom di ko fa di ko fa moomee bokkoon na ci ci ay dénkaaneem yow dafa la séddee woon ki nga xam ne moom moo di soxna Aida. Hmm. déedéet loolu moom amul loolu moom amul man wax dëgg yàlla mosuma boole kenn la la mas a wax ci sam ci làmm ma dégg ko mooy sëriñ Salim Thioune bi mu defee seex yi man moom la ma booleeg ak kunnaan ak kunnaan caawa euh, saw ñun la booleendoo ak moom xëy na nag euh, loolu ñu bari wax nañ ko ci dañ ñoo dañ ñoo boole ak waaye déedéet man boolewul ma ak moom man kin ma boole loon sëñ Saliou sëñ Saliou ndigal cuun mii lañ ma boole loon tey it ba ba bi ba ba sëriñ bi ni muy làqoo man pas-pas googu laa am sama diggante maak moom mais comme ma mënoon a boolee li wax dëgg yàlla waaye xel dafa mënta nangu sax waaw ma yaakaar sëñ Béthio doomam ne fi mu làqu ci saa doomam ne fi may am feneen ku may yees lu ko ci doomam. xam nga olof day wax ne kóllëre ginnaaw lay féete te ndénkaane dafa for tey bu fekkee ne sëñ Saliou euh, sëñ Béthio Thioune jaamu sëriñ Saliou yàlla na yàlla yokk leeram taas ñu ci barkeem euh, dafay nekk ci àddina ne la dénk naa la boole naa la soxna Aïda euh, Diallo pour ngeen liggéeyal ma mu dem ci ginnaawam ñu gis la ngay ngay ngay def leneen lu bokkul loola est-ce que nekkul loolu ñàkk ñàkk ñàkk jox war ma sa kilifa lay lay maanaam jox war sa kilifa lay nuru ah, loolu ah, loolu <laughs> loolu amu ca ndax bu fekkoon daf maa boole daf maa boole ak moom waaye liggéey bay tax bu ma boolee ak moom liggéey bay tax waaye damaa yaakaar ne su ma boolee moom te liggéey bi tax vraiment bu demee ba gisuñ ko waaye xanaa au moins sëñ Béthio war naa am xalifa war naa am koo fi doon koo fi toogal ñu naan kii mooy xalifaam waxuñu am na baatin nag amul baatin de waaye dina am koo xamee ne nan naan diw kat bu fa jógee waajuram waa ju diw ba fu jógee doomam moo fa war a toog doom ji mag moo fa war a toog waaye waay waay waay fii li nga bëgg a wax moom euh, maanaam am na lu ma copp tuuti waaye loolu fii sëñ Béthio bi mu fi nekk ci saayir di jël nit ñi di boole forme organisation da ko daan wax parce que sëñ bi ay ay zone la bu njëkk danaa wax naan jëwriñ yii ma leen booleel na ngeen xam yeen yéen jëwriñ yi taalib yi ma leen booleel seen taalib yi lañ ah booba yàgg na loolu loolu ay ay 94 93 laa na naan taalibe yi ma leen booleel seen taal da ngeen dem ba taalibe seen taalibe lañ ñu dem ba mu yàgg sëñ bi def ay zone zone Pikine zone aslem man mu jël ma jiital ma fii Pikine mu nekk di diggante caalo ji da kaw ba yaraax ba Canada ba post caaro yi ginnaaw raay def ma may jëruñ ji nga xam ne ñoom ñëpp dafa jël loolu nu teg leen sama loxo ma ànd kook ñoom waaye taxul mu taxul doonul taxul mu doon loo xam ne dama naan samay taalibe lañ samay mbokk taalibe lañ forme organisation la mu dem ba yàgg loolu ñu tas ko mu def ay jëriñ universel dem ba yàgg di jël mbooloo mi di jël di boole ak ay ñenn ci ay soxnaam waaye waaye waaye ku nekk war naa mën a xam ne ne kat waaye waaye nañ wax dëgg nag su ma taxawee nag gisuma jant bi lu ma kon su ma taxawee na man sama sëriñ jigéen la kenn mënu ma dara est yaa ngi dégg lu baax waaye loolu du xam-xam nekk bokkul ci yoon wi fii soxna soo fi seen sëñ Béthio def ko ni mu ko def xam nga lu tax ma def ko sëñ bi dañu ko ana forme organisation moo tax ma jël samay soxna gis na ay jàmbaar lañu te bëgg nañ liggéey bi te jege nañ ma te wóolu naa leen te jege nañ ma laan wax te wóolu naa leen moo tax ma boole leen ak ngeen ànd liggéey bi damaa jàpp nag ànd liggéey bi la kon dama yaakaar mu ne ba jàpp ne sëñ bi ci saa yi jóge na fi man na jàpp naa ne su boobaa kenn ku nekk war noonu dajaloo ànd loolu dem yeexlu ci fi nekkal xalifaam ki doole ak ki ëppul doole ki ëpp jëf ki ëppul jëf ki mbooloo déedéet te kii sëñ mi du koy gàllankoor kenn du koy xëccoo kenn xam na li leen waajuram mi def na leen def na leen ay jëwriñ universel ñoom ñu ànd ak mbooloo ma waaye man daal vraiment dama daf ma xaw a daal ndax am na noo xam ne boo ko ci waxee a ah, ñii am noonu ko gisee nga waxee nii nii am noonu ko gisee te wax dëgg yàlla am na ci yoo xam ne ànd naag sëñ ba toll naa foo xam ne ne am na ci loo xam ne daal moo koy wax daf may amal njariñ te bari ci yoo xam ne amul ma njariñ léegi tey fi ñu toll mooy seen émission nay riir ñu ànd see ki nga xam ne moom moo di Adra Fall tey boo amoon conseil boo xam ne da nga koy jox ki nga xam ne moom moo di soxna Aida Diallo lan lay doon. ah soxna Aida li wax dëgg yàlla sunu sunu soxna yi sëriñ la woon am njaboot ak sëñ bi njaboot ga mu am ak sëñ bi ñoo ñëpp doon ñoo xam samay sang laa leen jàppee wax dëgg yàlla ñoo xam ne ne utale wu leen ak sëñ Saalu ndigal mii ndax samay sang lañ ba tey ku ma ci ma bëggoon Madina Salaam ku ma ci seen da ngay daw nuyu ma ku ma ci seen man dama lay jël teg la ci kaw sama sang laa la jàppee waaye nag danoo toll ci moment boo xam ne ah man de xam naa ne lu ma gàtt gàtt gàtt xam naa ne Aïda Diallo fi may wax ak yow mooy responsabilité xàjjaloog mbooloo mii moom mooy responsabilité particulier bi fi ma ko teg nag fenn rek la mooy murit ndigal. ginnaaw bi sëñ Béthio joxee ndigal na ko yaay man may yow yaay man may yow loolu sëñ Béthio wax na ko fu nekk may ay di jàll mi ngi nii loolu kenn wéranteetu ko sëñ Béthio billaahi wallaahi taala nit mënta yàq lu sëriñ Béthio defar ndax sëriñ Saliou moo ne ko doo yàqu doo yàqule kenn mënu laa yàqal benn def sëriñ Béthio defuloo waxuloo loo wax maa ko wax loo def maa ko def bakkan nekku ci àddina nekku ci lépp sëriñ tubaa la waaye day bu fekkee ne dem nañ ba ci ñun taalibe yi am ci yenn taalibe yoo xam ne ne ci gàttal rek sëñ bi làqu na ci saayir ay taalibee ngi fi yoo xam ne ba tey solu ñu seen dàll ñëw siyaare sëñ Saal ne ko massa xam nga ñun ñooy ñun ñooy taalibe yi mbirum yàlla moo ñu booleeg sëñ bi waaye ñoom. xaalum dee dee war na ñoo xam ne sëñ Béthio leen jur kon bu ñàkk dee am ñoom ñu ko jàppee bàyyi ñooy ñàkk waaye lu xanaa ñun ñun jàpp ne ñun sëñ Béthio mooy suñu sëriñ mooy suñu sëriñ Tuubaa lu sëñ Béthio ñun ñoo ñàkk ñun li ñu boole moom mbirum yàlla la waaye ñee it dafa am ñaar yu daje ci ñoom da jur ba pare ñooy ay taalibe jébbalu ci moom niveau taalibe yi mën naa bañ mën naa bañ mën naa am différence ndax kii bàyyi la doom taalibe la bàyyi la doom la taalibe la waaye yow taalibe rek nga boo doxewul taalibe mën naa yàq sa diggante ak sëriñ bi waaw ma jàpp ne kay bu fekkee ne détails yu mel nii am na man da jàppoon naa ne ca tàmbali ga ah du demee nii ndax moom kat soxna Aida jëwriñ la ku nekk xam na ne ak jàmbaaram ci sëriñ bi ku nekk gis na taxawaayam ci sëriñ bi man de jàppoon naa ne da doon xaar ba liggéey bi yegg ba pare mu dajale mbooloo ma ànd ak ñoom dem ca Serigne Saliou. ñu bëri ci ci ci réew loolu lañ jàppoon moo tax sax bi affaire bi tool yi am na ñu bëri nanguñ cee wax ay yu bëri nanguñ cee wax parce wax mu ne comme dafa nekk ci liggéey te pareegul mënuñoo xam ban décision la jël ginnaaw bi mu defee liggéey bi ba pare fësal ab liggéeyam continué ko euh, war naa mën a soxna Aida war naa mën a bàyyi mu nekk ñëw ànd ak topp ci ginnaaw Serigne Saliou est-ce benn jour mu am. non sëñ soxna Aida du bàyyi ne lim nekk du ko bàyyi parce que yoon la woo xam ne sëñ Béthio da koo xaalaloon mu nekk fii kenn xañu ko ko sëñ Saal ba tey sëñ Saal Diallo Tade sëñ Saal Thioune kenn dégg ko mu wax ba tey ay Diallo moom daa ñëw toog toogaayu bàyyam ndax mooy mag xalif général di mu Mountakha jox ko ndigal yabal sëñ Bass mu samp ko léegi du sëñ Saal mooy dem mooy déedéet. képp koo xam ne aju nga ci sëñ Béthio fa nga nekk yaay nekk ca ca wet la la sëñ Béthio defal nga ànd ak loolu ñëw ci sëñ Saal ne ko man kat lii sa waajur ma ko dénkoon dama ñëwoon di ko yeesal tey déglu ndigal dina la téye loolu te ànd liggéey bi ndax moom jëruñ universel la. waaw jëruñ universel sëñ Béthio ko def jëruñ universel. kon bu ñëwoon bu ñëwoon ànd ak sëñ Saal euh, du ko téye mu kon ne doxal liggéey bi nga xam ne moom moom la ko sëñ Béthio doxal. mais pourquoi pas loolu sëñ man. bi sëñ bi làqoo ci saayir jëwriñu daara laa nekk jëwriñu zone sëñ Saal bi mu ñëwee damaa ànd ak sama sama daara dem jébbalu ci moom yeesa sama njébbal ak sama njaboot ak zone bi ñu nekk cër boobu ma sëñ bi joxoon moom la moom la jëlaat yeesalaat ko ci man dafa may jëwriñu zone Pikine ba pare yëkkati yëkkatiwaat liggéey bi yu nag yi teg sama loxo kon kooku mbooli seen ku àndoon ak sëñ Béthio te nekk fii te ñëw yeesal sa njëbal sëñ Bay sañ saal Pastef ga nga koy wan tax na mu jëlaat yëf yi delloo la ko waaye du ko delloo ko koy caaxaane de taalibe yi nag sëriñ bi lañu bëgg te dañ leen war a dimbali ngir jëmmi sëñ tubaa kenn waxul ne moom na ñëw jébalu ci sëñ Sall déedéet waaye dafa am ñaar yu taxaw yoonu murit yoonu toppante la xalif général de cantaakoon sëñ Sall la ay doonu sëñ Béthio ci ay doonu sëñ Béthio ci bàyyit ay baati nag yooyu ñoo xam man de xaw ma baatin saayir laa xam te sëñ beccu mii mooy sëñ xaar sëñ saal mii mooy taawam waaye nag bu dara dara dara dara baat bi sëñ Muntaxa wax dafa mat a jàpp sëñ beccu njaboote na njaboot gu fi nekkat taalibe yu kenn ku nekk sañ ngaa xool fu la neex nga dem jébbulu fa waaye yéen ñëw ñëpp di njabootam maasi leen yoon ñëpp topp ci ginnaaw sëñ saal looloo ndigal li waaw lu ko tey mën a def loolu ña ànd rek moom nag am na ñoo xam ne sëñ Béthio rek lañ gis ci moom am na ñoo xam ne xëy na mbirum saayir la ñoo xam kon ñooñu xëy na foo lañ sëñ bi teg xëy na fa lañ jàpp waaye en travers moom mii kilifa gi am na loo xam ne tey boo ko defoon kër sëñ Béthio lii ci ginnaaw sëñ Béthio daal man jàpp naa ne am na lu ko dàq lii nekk ci lii nekk ci ginnaaw sëñ Béthio ak li sëñ Béthio liggéey man jàpp naa ne daal. maanaam ñun ñëpp ñu maase woon te xam ne ay taalibe lañ ak taalibe moo ñu ci boole ñu maase na topp ci ginnaaw njabootu Sëñ Béthio te teewul kenn ku nekk la nga yor dang la nga yor da nga ko di ko doxal la preuve mi ngi nii moom kat mooy xalifa bi waaye liggéey bi da ko bàyyi jëwriñ ñi ñooy xalaat ñooy tëral ñooy ñooy tëral ñooy xalaat dinañ ndigal leen sama waajuroo joxoon joxoon naa leen ko ñooy ñooy sas yi ñoo koy lijjanti ñooy liggéey daara yi. buñ ci yeggee événement ñu toog xalaat mooy xalaat leen ñu xalaat nangam indi ko lu muy yokk yokk lu muy wàññi wàññi lu muy validé de mu mel ne que yooyu leer na léegi bëgg ñëw mooy zone Pikine bi nga xam yaa ko jiite mu mel ne que zone Pikine bi euh, daara yu bëri euh, am na ñeneen mbooloo yoo xam ne si rocceeku na dem tënku ci ginnaaw ki nga xam ne moom moo di soxna Aida. ah loolu. ngëm nag fa mu ne ci nit moo xaw a moo xaw a sori ku mu neex fu la neex demal yaa xam. man de en tout cas sama njaboot man sama njaboot wax dëgg yàlla yàlla dimbali na ba sama njaboot ñëpp ngi ci sëriñ saalu Thioune ndigal ak sama waa daana a ah, benn benn yi nga xam ne dañ fee jugee dem ànd ak ñenn ci jigéen ñi xëy na ñoom sëñ bi dañ la boole woon ak ñoom wala boo xëy na ñenn ñoom ñoo opté ànd ak moom waaye loolu de moom man du ma ci du ma ci du ma ci mën a sori waaye man daal. maa ngi sant bu baax ci fii ma nekk ndax sëñ Béthio kat lu lu nit ñàkk ñàkk ñàkk ñàkk xam-xam war ngaa xam ne moom jëfe ndigal moom kuy taalibeem ku ne aju ci moom doon nañ nga ko ci Cheikh Béthio ñàkk ñàkk jëfe ndigalu xalif général loolu moom kenn doon na ko ci kenn doon na ko ci waaw kon ñun ñu ngi santaat bu baax waaw tey euh, ñi ngi fàttali ne yéen a nga ànd SBT seen émission nay riir ñu dalal ki nga moom mooy Adra Fall mais fi ma bëgg ñu taxaw rek mooy euh, premier 17 avril boo xam se ne nii euh, maam dajewul Madinatu Salaam feete ko comme ni ko suñ becco daan defee ci ci ci ci ak nekkam mun tombeek coronavirus bi mu nekk premier événement bu mag boo xam ne cant gi def ko gàmm gi mu nekk bés boo xam se nii benn benn benn bés la ci li nga xam ne moom moo di cant gi mu nekk première année boo xam ne amut nga xam ne dañ koo def toog seeni kër def ko euh, bi bi 17 avril bi ñëwee ngeen dundee ko noonu euh, yow en tant que fidèle cantaakun euh, naka nga naka nga dundee loolu. ah wax dëgg yàlla nag biñ ko jubee jub événement bi tawat jii nekk muy mbaas mi ne ci réew mi wax dëgg yàlla doon na ci sama sama mbirum xol daanama ma met lool ñu yegg 17 avril ñu am doo am wax dëgg yàlla ndax loolu gënaluma ndax comme premier 17 avril la dafa am yéene joo xam ne. daal dañ ko bëggoon a fësal suñu diggante ak sëriñ bi. premier 17 avril boo xam ne sëñ Béthio euh, maanaam ci ci ci maanaam ci saayar nekku fi mu nekk premier première boo xam si ne sëñ Saal mi nga xam ne moom moo ko fi wutu ci ci toogin bi waroon a nekk premier maanaam nekku sax loo xam si ni maanaam ñàkkut am am na waaye niñ ko niñ ko màggalee mooy kenn ku nekk da ngaa kër màggal ko. Mm, waaw mais mais après euh, biñ ci yeggee ba ndigal wàcc. bi mu joxee ndigal ne kenn ku nekk na ko defee ci ndigal li ma jëlee ci sëñ Cheikh Mbacke ku nekk nañ ko defee sa kër. biñ ko déggee dañoo santaat sëñ Tuubaa bu baax a baax a baax biñ ko jëfe it gis nañ ne ndekete bii moo dàq sax buñ ko defal man no salaam barke sëriñ Saaliw parce que 17 avril mësul am ba ma def ko sama kër mësul am déedéet damay yónnee sama kër ñuy def waaye mësuma ko àndandoo ak ñoom. bii nag bi ma xëyee na ma ko daan defalee sëñ bi la ma xalifaam bi sëñ Saal Cuun woo ba ma xëyee laa ko ànd ak moom la ma sëñ bi daan sant ma di ko defal ma di ko defal la ma sëñ bi daan sant ma di ko ko defal ma di ko defal defal ca bis ba nit daan indilee sëñ Béthio ndikk defaral ko ko suñu Tuubaa ma naan dem ca ndékki la suñu Tuubaa dimbali ma ba action boobu moo amaat sama diggante ak sëñ Saal Gueule Tapée sama sëñ sama diggante ak sëñ Saal ndigal Cuun xam naa yow moom yow nga ko màggal nga di sa defal. billaahi wallaahi taalaay bii moo dàq bu mu mës a def wax naa ko ko nee naa ko cuun sant naa bu baax ndax li tax may sant mooy waxtu wi danaan fekk ñun ñun liggéey bi sonn waxtu wi nag may ma jug di dem ci ci ci ci ndékk yi ñu koy waajal ngir jëlee fa loo xam ne naa ci mën a ma jox samay gaa mu fekk ma tey nga nga jox ma ndigal ma ne ci nga wooyee ma yónnee ñu woo ma ma ñëw teg ñu lal ñu lal yëf yi teg may ndékkandoo ak yow maag sa njaboot man sat naa te Sëriñ Tuubaa wan na ma ne nangul na ma sama ànd gi ma ànd ak yow sëñ Béthio nag a ah, li ñu topp ci moom du saayir sii mbirum yàlla ji nekk ci biir la li nekk sunu xol te mënuñu koo tudd mënuñu koo wax euh, dafa yéeme daal seen émission nay riir SBT dégg ngeen li mu wax wax na fi li ko Serigne Saliou defal yëpp may ko ay soxna may ko ay kër euh, defar ko defar ko jëmmam ba ku ko gis naw ko bëgg ko yooyu yëpp dégg ngeen Serigne Adra leeral na si leeral na ci mbiram ñàkk ànd gi nga xam ne am na ci biir cant gi muy soxna ayda ak ki nga xam ne moom moo di Serigne Saliou ndigal cuun euh, yooyu yëpp leeral na ko waaye fi ma bëgg ñu jeexalee fi rek mooy ginnaaw bi fi Serigne Béthio jógee ñu jëm ci benn fanu koor nga xam ne mooy keroog bi dogal wàccee ñu jëmaat ci mu mel ni que mi ngi bëgg a def un Euh, euh, yow en tant que Thiantacoune euh, ban yëg-yëg nga am bii nii. ah fii may wax ak yow day wax dëgg yàlla ca sama kër sama njaboot fii may wax ak yow ñu ngi seen ñaareelu kaamil bu nu wàccee gum lu mu gàtt gàtt bala ñu cay yegg dana wàccee ñett walla ñeent xasaay di kenn wax ko ndax man sëñ Tuubaa daf maa defal tawféex maam doom muy sëriñ mu tuddee ko sëriñ Saliou ma maamaar mu tuddee Cheikh Béthio ñu am juróom-ñaari at kii juróom-ñeenti at mu jël yoox Sëriñ Saaliw ba sëñ bi làqu ñu nekk ak sëñ seex daaw jéeg la sëñ bi wàccee fii may wax ak yow chaque semaine dañuy wàcceel sëñ Saal ndigal benn kaamil ñaanal ko mu yàgg fi teew semaine sama doomi bopp yi ma sëriñ Tuubaa tawféexi lañ ñoo koy def fii may wax ak yow nag ñun. na sëñ Saliou mbàkke daan doxe rek ndigal loolu la sëñ Cheikh Mbacke yeesal ci moom mooy ku ci nekkat sañ ngaa toog fu la neex jàng sa alxuraan jàng say nii ñu koy defee di mel ne bis bi day ñëw ñu màggal ko di ci def def ko def ko événement loolu kenn déggu ci kenn déggul benn njabootu sëñ Saliou Mbacke di ko def ci bisam bisub bisub làqub sëñ Saliou Mbacke saayir ndigal loolu nag. moo dalaat suñu kaw moo dalaat kaw ñun ñu ànd ak Serigne Saliou Thioune ndigal kenn ku nekk boo ca yeggee noo jàpp na yow mën nga koo sante sante sëñ Béthio sa ànd ak moom ñaan yërmandeem gën a saaw da nga ko defee na nga ko mënee waaye doonu loo xam ne dañ koy symboliser ne ci barab naan ñu ngi koy wàcceel kaamil ñu ngi koy ñaanal ñu ngi koy nangam déedéet déedéet kenn ku nekk yaa ngi koy defee fa nga ko yëgee sa kër waaw di ñaan sëñ Saliou ndigal Thioune yàlla bàyyi ñu ko fi waaw di ñaan rakkam yu baax yii mu ko àndal yàlla bàyyi leen fi ak sunu ndey yu baax yi di soxna mboose ak soxna ay Kane ak seen njaboot ñun nag sant nañ bu baax a baax a baax a baax jëf mu ngi noonu suñu adara lañu amoon ci li nga xam ne mooy seen émission nay riir sbt média point com jaajëfal la euh, am mbégte bu baax ci disponible bi nga xam ne disponible nga ko ñu woola euh, am ak a waxtaan jataay bu mu mel nag li ñu mayoon ci wax sax xaabal ko waaye waxtaan wi moo toll noonu ñu jaajëfal lu baax sant la gërëm la noo gisee sbt média point com ci liggéey bi nga xam ne mi ngi koy liggéey waa sbt média day moom vraiment sant nañ leen bu baax ndax bu ñu seetee moo xoolee léegi xool logo bi muy sbt loolu de daf ma daf ma delloo ci sama sang ba di Cheikh ndax sëriñ Béthio Thioune mënees na koo tënkee loolu kon nag tele bi seen seen seen seen site bi yàlla dem ba doon tele boo xam ne dañuy toog suñu kër di ko seetaan te it yéen ñu koy liggéey xam-xam bi ngeen ci am balaa déwén yàlla yàlla yokk seen xam-xam te barkeelu seen liggéey ñu ngi leen di ñaanal daal di santaat bu baax yàlla motal leen ci dog-dog. te yokk seen i teraanga yokk seen xéewal ci barkeb Serigne Saliou Mbacké sant nañ bu baax waa SBT jërë ngeen jëf. noonu seen émission ne riir la woon xam naa ak beneen invité incha allah rabbi ci SBT Média abonné leen ngeen bës seen touche cloche notification bu defee vidéo yi nga xam ne SBT mi ngi koy dugal ngeen mën di ànd ñoom di jaajëfal nag tey sama caméraman spécial la Sénégal Buzz laa ko jëlee wax naa ne SBT fi mu ne nii commencé jamono ku ne bàyyi ko xel fi mu nii Sénégal Buzz fa laa jëlee patron ba dum jëlee ko Ali Thiam may wax ne site internet bi noonu la aar bi géej la euh, kenn mënu koo jeexal waaw seentu asamaan na jëla buuxante ayca mi ngi noonu beneen numéro <laughs>